Sénégal yi war nañu warna war nañu jaxlé fuñ ñu mais il faut ñu jël suñuy matuway ba nga xamanteni tay ji fañu jëm fa Macky Sall bëgg jëm ñu teel ko fa arrêté ndax kenn moko mëna arrêté mul peuple bi ndax bu fekkee justice justice bi nga xam mom moy justice Macky Sall amuñu ben wuluté ak ben confiance ko ci mom bo xamanteni man na xañ Macky Sall 3e mandat ta Macky Sall bëgg-bëggam yépp moy am 3e mandat ndax yag na ko bëgg ba tax ko képp ko xamanteni wax nga ci bok suñu mu dakk la ndax li am Guinée buñ ko seetaanee mu jàll mu am Côte d'Ivoire ñu sànq mu jàll day am Sénégal ci fa force moo waral tey négociation bi nga gis yëpp ay deal yoo xamante am na si biir yoo xamante ni après incha allah daan xool nan la ñuy def pour wax Sénégal yi dëgg ndax président Ablaye Wade xam na ni li Sénégal yi bëgg mooy réew mu jub mu dal mu aw si yoon mais nag du ñu nangu aussi Macky Sall ñëw bëgg ñu dugal si loo xamante ni lu ñu xamul la ndax troisième mandat lañ doon bañ a Ablaye Wade ko nga xam ne ñoom nga xamante ne dañoo wax si affaire Karim Wade ku ne xam na ne ay administration lan administration dañ leen a toroxal tey wàcc leen ci suuf benn ministre boo xamante politique ngay def kii nga xam day liggéey réew mi dem maanaam wax loo xam mu engagé si réew mi te muy dëgg nga dàq ko toroxal ko si kanamu Sénégal yi kooku jàpp naa ni ëllëg si biir Sénégal danañ xam ni ñooñu dàq danañ leen delluwaat seen droit incha allah